yéen a ngi déglu.
Zik FM. Écoutez Zik FM. Zik FM 93 point 1.
asalaamaaleykum mbokk auditrices yeeg auditeurs yi salaamaaleykum yéen ñuy déglu si 93 point 1 la voix du Saloum mbokk yi ñu amati mbégte di dellu see teg yéen si seen émission leerlu leerlu gu ñuy leen di présenté talaata ju nekk diggante 19h jàpp 20h si seen rajo Géo FM tey nag ñu fas yéene waxtaanee ab poñ boo xam ne yitteel na askan bi lool ndaxte nag lu muy bëri bëri ay ngëneel su demee bay indi ay loraange si biir kër gi indi ay loraange ci biir dëkk bi indi ay loraange ci biir réew mi. des na ko waxtaanee ngir xool naka lañ cay duggee loolu du lenn lu dul immigration irrégulière maanaam ci kàllaamay kocc di tukki bi nga xam ne gone yi ñu ngi koy tukki te teguñu ko ci yoon ngir waxtaanee loolu lépp nag dañ ciy ànd ak OIM di organisation pour la lutte contre l'immigration clandestine ab kuréel goo xam ne dafa jug ngir xeex tukki boobu ñuy tukki te teguñu ko ci yoon xeex bi nag duñ def lu dul jaaree la ko ci ay sensibilisation maanaam waxtaan waxtaan ak jeunes yi waxtaan ak njaboot yi waxtaan ak société bi ci boppam ci noonu la ñuy démarrer suñu série d'activités dina am ay waxtaan ci studio bi fii dina am ay waxtaan génn ci biti dina am ay waxtaan yoo xam ne tamit dañuy dem seeti ña nga xam ne jot nañoo vivre expérience bi am ñoo xam ne jot nañ ci am ay loraange am ñoo xam ne fii lañ des ci réew mi. tekki fi di fi faj buubu gàcce yi te demuñu bitim réew loolu lépp nag ci kanam lay doon tey nag ab magazine lañ leen di présenter magazine boobu ñuy réaliser ko ginnaaw ba ñu tàllalee suñ micro ay jeunes ay waajur ay ñi nga xam ne sax jot nañoo tenter def. expérience su tukki boobu te teguñu ko fenn loolu lañ leen di fas yéene présenté tey ci ginnaaw jëngal bi. voilà mbokk yi comme na mu leen ko waxee woon sànq rek dañuy door bile magazine d'information di ci gërëm bu baax a baax nag bala ma door suma reporter Papa Ndiaye mi nga xam ne moo ñu yombalal interview yi à travers toute la ville de Guinguinéo ca marché ba ci biir kër yi ci mbedd mi ca école ba fu nekk Papa Ndiaye moom dugg na fa lépp nag ngir saytu nit ñi xool seen gis seen tolluwaay ak seen gis-gis par rapport à la question di immigration irrégulière moom Papa Ndiaye am na ñu bëri ñu mu dajeel ñoom dajal noonu tàllal na leen micro wax nañ ko lañ ca xalaat question bu njëkk ba mu laajte moom Papa Ndiaye moo di ñooñu mu dajal ñooñu lan mooy seen gis-gis ci question bi maanaam ci tukki bi nga xam ne gone ñoo ngi koy tukki te teguñu ko ci yoon duñ def lu dul dëgtal leen interview yooyu nga xam ne suñu mbokk yooyu def nañ ko ak Papa Ndiaye su ko defee doog jàll si yeneen poñ yi.
waaw loolu moom baaxul ndax li tax mën a baaxul moo di man am naa suma doom boo xam ne maa ko jur Mamoun Thiam fi la nekkoon mooy suma taaw. fi la nekkoon ci dëkk bi amoon na jabar am doom ñaari doom yore bitig bu doon bitig fii kaneem doon ko jaay mais mu dem ba mu yàgg rek xelam ci tukki la ne mu ñëw wax ma ko dama bëgg mën a toogal ci liggéey bi dox na waaye boo xelam ci dem la ne rek xam nga demee yàlla lu mu dogal ni dafay am fekk boo yàlla dogal na ne du dee fii Sénégal mu ngi dee ji feneen ba ba dem na sax boolem ak Eli Ibrahim Niass nga xam na ne Eli sama mag la yàlla boole na ma Eli woo ma ni ma maamu ñëw na fii ci man di wax ne daal ak yow nga aay ma bëgg daal nga waxtaan ak nga nga bar nga bàyyi ko mu ne waaw comme noonu la te man teraanga ji ma am maa ngi ko amee ci ndax man may dem ci réew naar yi di jàngi arab amoon naa nag man visa amoon naa su ma koy am bu sa rentrée bu Algérie waaye mais ci àll bi laa jaar ci désert bi laa jaar dem ma ne comme man teraanga ji ma am ci immigré laa ko amee tukki laa ko amee ah bon naa ko bàyyi mu dem rek yàlla mu dem bàyyi ko mu dem bi mu demee moom yàlla nga ko nattu moom mu ngi dee ma kii Maroc damay jël gaal di jàll ma renseignement yi leer na moom dee na après euh, fekk bitig bi mu yoroon mu ngi nekkoon dina kër duut siise mais mu amoon euh, numéro téléphone bu kër duut siise bi mu gaañu ñu vérifié bagage am naar yi vérifié bagage am ci si numéro boobu ñu xoote ci ba ñu xootee boo jot duut siise ne ko ndax xam nga Mamadou Thiam mu ne waaw ñu ne ko dafa def accident du si du si ñëw fekk sama fii sama kër jox ma numéro bi ma xoo waa ji wax ak moom arab mais waa ji déggul arab mu ne ma man France laa dégg ma jël numéro bi jox ko rakkam ba ba mu kaw yore benn centre ma jël numéro bi jox ko rakkam Babou Thiam mooy ne ci kër gi tey ab jàngalekat la Babou Thiam dem bi mu wax daanee ak moom waa ji xam na ko ne ko waaw moom dafa dee noonu lañ ko ñàkkee.
dafa nekk loo xam ne cas boo xam ne fi ne nii mu- jéggi na dayoo am na waaye dafa gën a jéggi dayoo ndax parce que nit ñi dañoo gis léegi daal tukki dong rek lañ teg seen bët te cas bi war war te demee noonu war nañoo mën a viser leneen lu dul tukki.
non loolu moom du xewal moom dem tukki di jaar ci ndox moom du xewal moom àdduna moom foo nekk liggéey gëm sa bopp da nga am loo terelee say waajur loolu bari na lool sax xale yi nga xam ne dañuy jaay seen bakkan jaaree ci nu- ci ci ci noonu te réew am na réew tugal yi balaa nga fa de- cay dem da ngay dem wuti passeport de- de- ah, wuti euh, visa dem ñu may la visa ba nga am ko nga dagg sa billet normal nga dem kenn du la kenn amul benn problème bu ñu la teg mais léegi xale yi yo- yo- yo- yoonu ni nga ko waxee léegi moo leen gën a yomb.
ah loolu de moom wax dëgg yàlla moom du lu rafet loolu moom ku ko mën a ba daal moo gën moom tukki moom boo amuti kayit mënoo jaar ci yoon moom ba toog liggéey sa réew moo gën daal moom suñu yëf moom noonu lañ ko jàngatee moom suñ mënta ami kayit daal yu wóor moom ñu toog fii daal liggéey lu ñu am rek jàpp ci waaw loolu daal mooy xéewal gi moom am naa sama beneen doom boo xam ne ki nga wax Mamad Thiam man lañ ko tuddee maanaam Mamad Thiam man lañ ko tuddee sama rakk bi ma bokkandee baay moo ko jur moo ko jur tuddee ma ko moom itamit ñu ngi rafet njort rek ne ba léegi moom itamit dafa dee parce que bi mu bàyyi ko fii Sénégal ak léegi man na ñetti at yoo xam ne dégguñ ci moom dara téléphoné wut nu bindut nu am nañ renseignement yi leer nag ne moom dem na ba Libye Libye moom àgg na fa mais nag dañoo refee njort daal ne dafa dugg ci gaal gi di war a jàll gaal gi suux loolu la lañ yaakaar man ñu daal ñu refee njort daal ne bokk na ci xale yi dee ci dex gi ci géej gi mais nag amuñ ci nag benn renseignement boo xam ne bii ma pal pa pal ma renseignement bu ñu mën a làmb man moos bu mën a laal ne lii la waaye daal Eh, moom xamoon nañ ko ku yeexu la ku am yitte la bu demee am ñetti at bindu téléphoné wu rek xam nañ ne yéen a yéen a quelque yéen a quelque xam naa ñu ngi koy def mais gënalu leen tamit n'est-ce pas ndax euh, boo gisee ñu siy tukki di euh, jaar si presque ci géej yeeg affaire yu mel noonu. bon manque de moyen lay doon. parce que ku nekk boo sañoon da ngay tukki légalement. xam nga jaar si avion bi ku si nekk loolu nga préféré woon mais tamit comme que comme que échange yi euh, bon situation yi ni mu demee Sénégal tar na tar boo xam ne euh, ku ne mënu see gis sa bopp. xam nga gars yi dañuy préféré yaakaar nañ ne nag euh, buñ génnee. liñ doon liñ maanaam luñ génnee danañ liñ doon liñ doon luñ bëggoon fii buñ génnee foofu danañ ko fa mën a am. moo tax ñuy préféré dem bitim réew alors que fii tamit au moins boo fi nekkee yàlla sa wërsëg mën na la fekk xam nga mais ku ci nekk boo sañoon fi nga dëkk fa ngay fa ngay toog am fa say teraanga.
xam nga euh, tukki ci jaaroo ci yoon xam nga nit ki aussi bu dee da nga koo dund tukki si jaar yoon risque la liñ naan tey jii boo demee bay tukki jaaroo si yoon rek mooy yow nga jël sa bakkan rek tay la ko ci armeer yi la demee parce que dafa nekk lu mbir mbir moo xam ne mbir mu doy waar bu métti sax méttiwaay bi tey jii balaa nga koy xam yow ma ca jaar yow yaa koy xam ndax méttiwaay bi foo ko takk ëpp na dayoo ma ci xam mooy métti na méttiwaay goo xam ne dansé na dansé goo xam ne loo xam ne yow mën nga ci ñàkk sa bakkan mën nga ci ñàkk sa bakkan boo demee ndaw lu dem ba di ko jànkanteeg loolu bu fekkoon am na ay moyens du jànkanteeg loolu day dem dagg visa am dem ci condition yu leer nañ bu ko yàlla dogalee mu egg ci jàmm xam nga ndaw su ndaw loolu ndaw loolu def loolu am na jom ndaw loolu dem ci bato yi di dugg ci gaal yi bato yi ci amuñu kayit dañoo amul ay moyen waaye bu ñu amoon ay moyen duñ def loolu man de loolu bokk na ci li ma xam sama waa ji Euh, am na yoonu am na ñaari yoon am na yoonu géej am na yoonu suuf yoonu suuf itam am na ñaari façon yoonu géej bi mo- mooy euh, mooy ñi nga xam ne dañuy dem ci gaal yi dañuy xaw dem ci gaal ndax gaal am na fu muy mën a yem ci biir géej bi du fa mën a weesu bu fa weesoo rek seen bakkan a ngi ci xott bi dégg nga ñaareelu yoon bi jaaree ko Mauritanie Maroc ra- reyante foofu ci naar yi nga xam ne fu- naar naar yi nga xam ne ñu naqare nekk ñu naqare affaire la jaare ko foofu bu jéem a dugg biir Espagne am fa ay jafe-jafe yu métti am na beneen yoon boo xam ne ñoo xam ne dañuy jaar Mali jaar Burkina bëtt noonu dem ba Libye xam nga am Libye amoon na fi problème boo xam ne ba Sénégalais yi sonoon ci lool sax am na sax ñu jotoon dee dégg nga yooyu yëpp façon yooyu moo ko indi am na boobu yoon tamit bëttee noonu jaar dem dem jëm jëm egg ci réewu dugal yi réewu dugal na su ma ko waxee bari na ndax du du du du du réew yu bari la.
dara ci wóolu irriga loolu moom dara wóoru ci dox googu moom dara ci wóolu waaw léegi wóor ba wóor daal mooy liggéey liggéey nag foo ne fu ne mën nga faa liggéey waaw loo duggee ci àll bi kaleer bi góor ñaa ngi fii di góorgóorlu ci xeer bi ah ah tool yaa ngi nii njaay ak jënd maa ngi fi maçon baa ngi fi manœuvre baa ngi fi lu waaye mën a ne ba am ci loo dunde dëgg yàlla mi ngi fi am na ci loo xam ne nag jaay sa jaay sa jaay sa dund la rek wanteer sa bopp njariñ nag loo fekk am milliard ak million ndax daa wóor ndax boo amee xaalis boo xam ne mën na laa conditionné dugal la ci yeneen boobu taxul ñuy wax xaalis waaw nit ñi nag nanu delloosiwaat sa xel yi dool feddaliwaat seen ngëm yàlla te xam ne yàlla mooy joxe mooy xañu tukki boo tegul si yoon de un boo tegul si yoon voie légale moom boo ko jaarul mooy par avion te avion bi tamit aussi mën nga jaar ci voie boo xam ne tamit aussi visa bi baaxul xam nga mën nga jaar tamit si ndox mi te ndox mi moom man li ma ciy conseil nit ñi mooy ñu moytu ko na parce que man mii di wax ak yow nii yàlla dafa def nag dew jaaruma si ndox mi waaye wax dëgg yàlla man tey jii képp ku ma waxoon ni man mii du ma dem si ndox mi ma weddi ko waaye nag damaa dem ba xool ndax parce que bu dee da ngaa def test ndax man nekk naa Dakar mentul yoon ndax parce que dem naa ba mujj gi tey jii man traversé Dakar Gorée bi rek Dakar Gorée di ko traversé noonu rek ndax li ma gënoon a marqué tamit aussi ba ma sama xel gën cee génn loolu la ndax dama mus a traversé Dakar Gorée bi mu nekk ma toog ba sàgg ne lii daal wax dëgg yàlla neexul ba neexul risque la ndax risque mënta weesu tey ndax géej yow moteur gaal bi moteur doo nga koy dawal yéen ñi ci des yéen ñun ñëpp na ngeen di toog sur place xam nga dem ba si biir ñun dem nañ ba si biir gaal gi day am ndox ngecc boobu ngay dem rek yow toujours bu jot nga bëgg a traversé nag li toll ni Dakar ba Barcelone loolu man daal wax dëgg yàlla dama dem ba si biir daal wax dëgg yàlla ma yeddaat sama bopp xam ne lii du jëfu nit ndax dafa nekk risque risque de dëgg la risque boo xam ne tey lépp ngi ci ña dem foofu am na ñoo xam ne tey bu ñu amoon paas wàññi ko wàññi ko kon nañ toog te liggéey te wàkkirlu ci yàlla te xam ne liggéey nag mooy tax a jariñ te bàyyi àll bi ñuy dugg wóorul naar yi ñoom seen dara wóorul te foofu dong nga mën a jaar boo yorul avion man de loolu laay digal la képp koo xam ne yaa ngi toll ci war a am dara di góorgóorlu ngir sa njaboot toogal bis boo ko mënee nag waaye waaye yàlla na la yàlla yóbbu ci jàmm loolu lañ leen di ñaanal waaye boo ko mënul ah am na rakk joo xam ne dem na ci ndox mi noël yi noël yi mooy dégg nañ ne daal des na géej waaw te loolu wax dëgg yàlla metti nañu trop yàlla nag mooy dogal waaw yàlla mi nga xam ne moo ko moo ko moo ko fa jëmale ba tax mu wàcc liggéey ca géej gi yàlla na ko yàlla xare àjjana li ci gën a am solo daal mooy wàcc sax njaboot moom di dem loolu daal mën naa ñàkk waaw te ña ngay wàcc gannaaw bala ngaa dem bay am sax koom ba leen di yónnee rek ñoom coono gi nga leen di bàyyeel doo xalaat loolu waaw xam nga boo xoolee Sénégal ni ma ko waxee ni ma la ko waxee sànq ci géej bi boo xoolee Sénégal dafa dafa sës ci géej yaa ngi dégg maanaam suñ ko mën a waxee mooy buntu Afrique kon géej dafa sës sës ci géej ba nga xam ne yow boo xoolee géej bi rek jaar Mauritanie jaari Maroc rek yaa ngi biir Espagne waxante borom gaal boo xam ne moom tam nit ku bon lay doon yaa ngi dégg récupérer xaalisu xale yi dégg nga maam nëmbatu leen dug yu dugal leen ci gaal yi jaar ci yoon ci pegg bi yaa ngi te da nga de da nga dem ba foo xam ne géej bi te ni ma ko waxee léegi gaal bi mënatu la dem ci yëngu-yëngu géej bi ni muy yëngu ni muy gaay loolu nga xam ne bato rek moo ko mën mais yow nga jël gaal pirogue pirogue li ñuy wax pirogue mooy gaal yi ñu nappee façon yooyu nga jël nga xam ne mënu fa àgg risque bu rëy la waaw comme ça tey jii nga jël sa xaay jox ko nit ne ko tey Zo man mii kat damaa bëggoon a voyage ndax man boo dee xool 95 laa doon voyage 95 ma yëkk sama xaay jox ko ku mel ni Zo xam nga comme exemple laa joxe rek kooku jël sama xaalis ne man daf may wutal visa léegi si visa boobu wax dëgg yàlla vi bi naka tey visa baaxul ndax visa falsifié comme ni ñuy defee rek falsification la xam nga yàlla dafa def nag wax dëgg yàlla aussi jaar wuñ fii par Gambie lañ jaaree ndax de un Gambie rek coono gañ fa daj ndax parce que boo dee xool Gambie yi def nañ fa un mois yoo xam ni ndax léppul si voyager la ndax voyager boo jaaru yoon rek doo jaar si voie légale ndax tey jii bu doon ñun dañuy jaar yoon du ñu jaarle Gambie waaye Gambie la ñu yóbbu bi ñu yóbbee Gambie foofu Gambie pour ñu traverser rek pour ñu jéeg avion rek def nañ fa presque boo tey xool un mois va et vient va et vient va et vient ba yow mujj gi yow mi tamit xam nga boobu yow sa xel doo gis lu dul la voyage doo ngay gis gëm-gëm bi nga am mooy dem tukki rek ngay gis waaye nag coono bi tamit aussi da ngay dem ba moment boo xam ni aussi yàlla dafa def ñu dem ba moment boo xam ni ñu dugal ñu comme ça nii rek jékki-jékki rek xam nga loo gis it am na ay bunt mu am benn bunt rek dugal ñu ci ñu ñu yéeg avion dem ba wàcc Barcelone biñ demee gars yi xool suñu visa ñun taxawee ni ñun ñu ànd ñëpp dañoo taxaw leen ni ndax loolu moo waral ni ñun li ñu yore baaxul li ñu yore tey jii bu baaxoon ñëpp duñ ñëw di génn ñun ñu ñëw ñu taxaw leen nii
ci luñ jot a déglu ci reportage bi wane na ne immigration clandestine bi lalwul lenn su dul si ay risque risque yi ci baatub risque boobu ñëwaat na ci ñëwaat ci ñëwaat ci ndaxte teguwul ci yoon waaye tamit reportage bi wane na ab tas yaakaar ñoo xam ne dañoo dajale woon seen xaalis jéem cee tukki mujjuta antu wane na tamit ab naqaru xol naqaru xol ñeel yenn waajur yi naqaru xol ñeel ñenn ñi nga xam ne dañ cee ñàkk seeni rakk wala seeni jarbaat wala seeni borom kër waaye tamit reportage bi wane na ne lépp lu ñuy def dañ kaa war a teg ci yoon moonte de liñ fi wax lépp teewul gone yi ba tey xirtalu ci jaar ci yoon yu ñu aaye ngir àgg ca fële ñuy jàppee ne mooy Eldorado di Europe ak lum leen mënti jaral ñaareelu poñu interview bi moom Papa Ndiaye gëstu na ci ñi mu dajeel ana lan moo waral xale yi malgré les risques yu nekk ci immigration clandestine bi yëpp teewul ñuy sóobu ci yoon yi mu ci suuf si walla ci géej gi nañ leen leen déglu ngir gën a mën a xam ana lan moo wundu demub gone yooyu ci lu teguwul ci yoon waaw li leen motivé mooy man li ma li ma li ma ci puusoon rek moo leen ci puus ndax man bi may tukki di dem di jàngi arab bu fekkee dama am jor ba moom ñaari doom boobu sama doom ñoo xam tey mbay muy jàngale na ci kër gi atam la judd 73 la judd at bi mu juddoo man ci at boobu laa quitté waaye sax pour dem Algérie jàng ma xam ne booba la ma poussé woon bu ma dem jàng booba man jàng rek laa bëgg la ma poussé woon ma dem na ma bëggoon xam-xam ba mu poussé ma ma génn réew mi dem xale yi tamit bëgg-bëgg xaalis boobu moo nekk ci ñoom ba ñoom tamit ñuy génn dem di wuti xaalis waaw dem bi li ko sabab mooy ñun tey jii li ñu gëmoon tey xam nga dañoo gëm ni moodu moodu yi dañuy ñëw dem indi ñëw tabax ay étage xam nga loolu moo gënoon a yokk tax ñun suñ vision dem bi yëpp mooy tey nit ki dem na même pas un an mu ñëw tabax te pourtant biñ toogee ba xalaataat ne ñoom niñ def ba ñëw tabax ñun tey jii buñ ko defee ci Sénégal gii dañ ciy génn ndax parce que def ci Sénégal gi génn ci mooy liggéey liggéey la rek tey jii nga toog fii tey ànd ak sa njaboot di liggéey yàlla xam na ni moo gën immigré nga génn ci dëkk bi génn bitim réew te yàlla xam ne la ngay fekk xamoo ko la ngay fekk bitim réew xamoo ko tubaab yi maltraité bu ne dinañ la ko def ndax nit ki da ngay dem ñun bi ñu jàppee noonu bi ñu jàppee dem nañ ba yàlla def na dem nañ ba Leipzig Allemagne waaye bi ñu jàppee gars yi sax boo dee xool dañuy seexlu ay gants la ñuy ay gants la ñuy sol pour lan sa der bu ñuul bi ndax euh, ndax nit ki xamal fa nga- xamal fi nga jóge waaye xamoo la ngay fekki xamoo ko ndax ñun li ñu fekki ñun li ñu vécu foofu noonu tubaab man demoon naa bi ma ñibbisee dama ni man tubaab dootuma ko xool waaye nag lépp mooy li ñu wax rek li ñu conseillé xale yi rek mooy wax dëgg yàlla bu ma sañoon ñoom ñëpp ñu toog fii fee metti na wax dëgg yàlla la gars yi amoon bu njëkk ba at léegi bokkutul am na yenn xeet yi xeeti métit yoo xam ne bu jékki-jékkee ne tës ci boroom xel jékki-jékki ne tës ci boroom xam-xam daf koy bett bettaay boo xam ne am xelam yépp daf koy dal di réer maanaam lu mu waroon a def ak lu mu warte def ak yépp dootu ko xàmmee métit yooyu nag moo dal ci xale yi
xale yi xam nga euh, dañuy bëgg ah, boo toogee te sa morom dem ñëw indi indi ay millions tabax kër yóbbu ndey bàyyi màkka bon ngay doon ko xam ne itam ku am jom nga ku am maanaa ku am xaris nga maanaam ku am bëgg-bëgg nga ci defal say wayjur te amuloo ko loolu rek moo leen ci poussé loolu rek moo leen ci poussé ñenn ñi dañuy gis rek ñi kii dem ñëw vraiment defar këram yor dara wala mu yor otom waaye yàlla moo bind te yemalewul kenn ku nekk ak sa wërsëg tool te dem gi bu jëkkoon la tane te léegi dem gi yombatul waaw léegi comme dem gi yombatul nag nit ki dem na ñëw yor na lii nga ne man danaa def na moom ndax yàlla moom bind na lool sa jëf xamoo ba xam bind na ko fa am déet toogal góorgóorlu bu fekkee ne war ngaa koo dabi moom danga ko dabi fii ci Sénégal am na ñoo xam demuñu fenn ñu ngi tabax étage ñu ngi yore oto comme ñëpp boo bàyyee xel ñooñu wallaay da nga toog te góorgóorlu. ay bul xeeb boo xeebee mooy waral lu baree bari mooy xeeb sa wërsëg moo waral lu bari.
mais xam naa dañ koy def mais tamit gënulu leen waaw ndax boo gisee Sénégal tamit fan yi métti na métti goo xam ne euh, boo amul ay moyens doo dangay sonn jàng bi demeewul noonu liggéey tamit maanaam chômage bi dafa bëri. xam nga genre yu mel noonu tamit mooy poussé ce- certains jeunes yi ñuy dugg si ay affaire clandestin yi xam nga di dem bëgg a uti ay teranga tamit alors que du mën na bañ a gën si ñoom tamit.
xëy na dëkk bi ni mu demee la moom temps yi moom dëkk bi métti na torop torop torop torop dëkk bi moom dafa métti waaye nag lépp nañ gëm yàlla rek xam ne moom yàlla mi ñu fi indi moom du ñu bàyyi mukk loolu moom bu ñu ko gëmee rek day baax waaye moom dëkk bi moom métti na moom fu métti yam moom egg na fa mais nañ gëm yàlla rek te liggéey jaamu yàlla yàlla baax na ndaw li nga xam ne maanaam dafa dem bay def loolu ma ngay jànkantool ci biir seen biir kër baayam ak ndeyam ak ay mbokkam ma ngay jànkantool lu metti jànkante boobu muy jànkante ci kër baayam ak ndeyam ak jom joojee mu am moo koy dugal ci loolu ndaw loo gis mu dem ba di ko def rek dafa amul moyen moo waral mu jànkanteeg loolu da ngay gis pour dem ba ngoon nga ñëw sa waa ji ne la waaw waaw lii rek nga mën de lii rek nga mën de lii rek waaw waaw dama dox ñëw rek sa morom yaa ngi liggéey ñi ngi daan seen doole yow nga toog di nelaw ko yow rek ñooy jox xane réer ndéeg xam loo ba ko aji wax ko doom di jub boppam mu dem def ñu ci ñoom loolu rek moo leen tuddee képp nag nit ki mënoo nekk si kër nekk taxaw wala nga nekk si digg bi yàlla def am ñuy liggéey yow liggéeyoo toujours bu jot ñu naan lañ da nga amoo jom amoo jom ku ñàkk jom nga xam nga loolu toujours bu jot loolu dañ ko war bàyyi ndax parce que liñ naan am-am dëkkul fenn ndax nit ki nit kiy liggéey am na ñoo xam ne yàlla dafa def tey jii ñoom fii lañ war a tekkee yàlla dafa def am na ñoo xam ne fële lañ war a tekkee waaye tey jii lépp lépp daal xam nga dañoo war a gën a jàppale xale yi jàppale xale yi mooy xam nga wax ji ñu wàññi ko tuuti ndax nit ki boo dëkkee ci noppam amoo jom amoo jom bu yàggee mu wuti jom te wuti jom ji li la ciy fekk rek lu ne daal moom Barça wala Barça rek waaw loolu daal moo ci am moom.
xam nga bu fekkee ne nekk nga ci réew moo xam ne fii mu nekk ni sa yaay nga fay dund sa baay nga fay dund sa famille yëpp ñu nga fay dund tabaarakalaaw te ñooñu nga war leen a dimbale gis sa moroom yi di dem di dikk ñoom itam di dimbale seeni waajur Eh, léeg-léeg nga ne eh, diw de yóbbu na yaayam màkk wala yóbbu na papa màkk wala kër gu rafet gi diwa ko moom te réew mi metti ci yow yow mënuloo am benn sagaru dépasse boo xam ne da nga koo mën a joxeel sa papa ak yooyu kooku noo mën a fexe ba dem rek da nga ko def dootoo ci seetati sam xel dootoo ci seetati diisoo ak yeneen ak yeneen mel na ni bi nga xamee ne mbir mi bett na leen dañoo toog a toog a toog ba xat ci eh, tabaarakalaaw ci biir réew mi bu ñuy dem da ñoom l'essentiel nañ génn Sénégal rek moo xam dañ koy jaar ci ndox mi moo xam dañ koy jaar ci jaww ji moo xam dañ koy jaar ci terre bi suuf si ak yooyu boo dee xool tamit nit ki tamit aussi bu dee amul lu mu jàpp tamit xam nga yore dara dara jooju dañu naan day bëgg gaayan mu dem gën a gën a yokku loolu moo gën a yokk gars yi waaye tey jii bu doon liggéey am na fi tey boo xam ne tey xale yi mën nañ cee téye ndax jamono ji jamonoy sutura lañ ne na nga am dépense booy jox sa njaboot xam nga loolu lañ fa am waaye nag bu dee nit ki tamit aussi day liggéey te amul ci lu mu jàpp lu dëgër rek day xaw a doy waar pour nga génn génn bi da lay pousser lool xam nga boo gisee ñu bëri di génn rek loolu la dañuy liggéey waaye li ñuy liggéey moo leen doyul xam nga te nit ki boo dee liggéey li la doyul da nga koy jéem a wuti feneen te wuti feneen boobu xamoo loo cee fekki.
ginnaaw bañ dégloo xalaatu ña suñu reporter Papa Ndiaye dajal mënees na ci jàpp ne lay xirtal gone yi ngir ñu sóobu ci yoon woowu nga xam ne teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon mën na jóge ci ñetti fànn bu ci njëkk moo di jeune bi ci boppam gone gi ci boppam xëy na yee menn moromam tekki na dem na bitim réew am sens ñëwaat tabaxub étage yóbbu yaayam màkka di faj bu mu gàcce yi loolu mun na ko révolter moom tam mu yaakaar ne war naa def ne kooku pression bi tamit mun na jóge ci biir kër gi ndaxte ci reportage bi dégg nañ ci ku dem ba wax ne yenn ci ay waajur yi surtout yaay yi xas yu ñuy xas seen doom yi amagul liggéey yi tekki woo fi dara defoo fi dara lakkale nga nangam sangam loolu tamit mun naa dem ba xoñoñal gone gi ba mu sóobu ci yoon woowu nga xam ne teguwul ci yoon waaye tamit bu ñu fàtte ne la gën a yokk xale yi ñu dem ca bitim réew du lenn lu dul wutub liggéey te liggéey boobu nag suñ ko amoon si biim réew xëy na danañ fi des liggéey nag ku ko wax sim réew da nga ca yaakaar njiit ya autorité ya dëgg la sax xëy na ñoo ngi jéem seen kéemtalaay kàttan waaye la xale ya di xaar xëy na gisaguñ ko moo tax ñu yàkkamti suñ baraloon seen tànk tuuti yokk seeni mën-mën amaana lii ñuy jooy tey danañu féete ginnaaw ginnaaw nag loolu lépp àgguguñ fa dama yaakaar ne lépp loo gis ak lu mu metti metti dañ kaa war a pencoo te ku ne pencoo déglu ay xalaat xalaat yooyu la ñuy déglu ngir suñ gan yi wax ñu lan lañ yaakaar ne warees na kaa mën a def ngir saafara am ci jàngoro gi nañ delluwaat ak suñu gan ya ak suñu reporter Papa Ndiaye.
mbir moom lu mu metti metti metti bu mu tee nga ne tekk ànd ak tekk ak teey nga laajte boroom xam-xam ya laajte ñi nga xamee ne tabaarakalaaw ñooy boroom xel ya ndax sunu boroom dafa wax ne fasalu ala sikri in kuntum la taalamuuna bu fekkee ne laaj nga ba mu leer benn nga ne waaw géej gi nangam ak nangam ña am xam-xam ci géej gi ne laa déet am na ñu ci jaar mucc de waaye jamono yi ñu toll nii jaar ci géej gi doonte neex na itam neexatul mbaa nga ne fii fii dama ko bëgg a jaar ci yoonu suuf yi ñu ne la bur jaal Maroc de na nga jaar tennis yi wala teggil tennis yi Maroc moo xaw a tane ak yooyu ndax jamono yii nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam yooyu yëpp dafa am ci yoon yi ak yooyu loolu bu fekkee ne nag laajte wuloo ak yooyu yow xanaa métit bi daf laa caw ay yaram nga jekki-jekki gàcce gi nga xamee ne waroon nga ko dimbale sa papa topp la wala gàcce gi nga xamee ne waroon nga ko dimbale sa yaay topp la maanaam daal bëgg ngaa tekki te bokkoo ci way tekki ñi ak yooyu dem bi dafa da- dafa lay dal di pikiir noo mën a demee rek tabaarakallaa da ngay dal di demee noonu loolu dong moo dal xale yi bëgg a tekki dong dong gis seen moroom yi tekki waaye nag kenn du gis sag dee tabaarakallaa dal di sànjaafu dégg ak yooyu waaw man tey jii jeunes yi li ma leen di wax mooy tey fii fii lépp lépp ngi fi marchand ambulant mi ngi fii xam nga affaire bi gëm-gëm la ñun tey jii biñ demee ba xam ne leer na ni tey jii ñun li ñu wuti tey bitim réew mën nañ ko am fii dañoo jël suñuy saak xam nga jël suñuy bagage teg ci dugg si kër yi benn benn fii lépp la fii li ngay ambulant Ndakaaru Njaay Géey mën nga koo ambulant yow képp ku nekk fu nga dëkk ku nekk boo ko gëmee benn 10 000 francs nga gëm ko ne 10 000 francs bi dama cee war a yor sama njaboot na nga ko ci yor ndax parce que li ñu wax rek nit ki da ngay gëm sa bopp d'abord nit ki boo nee man mii tey jii dama xool kii nga xam ne tey dafa yore étage ki yore étage dafa commencé si suuf xam nga waaye tey nga gëm sa bopp ne man mii tey jii lépp lu ma yàlla wërsëgalee rek lii doon war naa ci yore sama sama njaboot moo tax jeunes yi maa ngi leen di gën a ñaax xam nga mbiru clandestin ñu bàyyi ko si suuf ndax parce que dafa nekk métier moom la tukki boo xam ni ah wax dëgg yàlla léegi Barça dong moo ci am Barça dong moo ci am waaye du Barça amatu ci ndax parce que risque yi ci ne waxuma sax surtout yoonu suuf bi ñu gën a jël léegi yoonu suuf bi risque bi ci am rek moo gën a gaaw ndax parce que tey jii boo gisee ñi dem kenn gisu leen dañ leen a rey si àll bi àll Mauritanie bii àll Maroc bi ñëpp naari rey na leen Algérie sax moom waxee nopp moo tax tey jii gars yi bu ñu la waxee ñoom yoonu suuf ñun yàlla def na nag suturaal nañ waaye yoonu suuf bii moo gën a yées lu yées ndax parce que tey da ngay dem ba si digg àll bi sa xaaj jeex ngay woo dañ lay chantage chantage bi moo ci ne chantage bi mu dafa bëri si àll bi da ngay dem naari ñoo lay jàpp tey jii pour ñu traverser la oto tey jii ne la désert biir bii da nga koy traversé foog nga jox ñu temps temps jooju da nga leen koy jox ñu dem ba si digg àll bi wàccee leen ne leen acca àll baa ngi noonu ngeen ngo da ngay nit ki gis ki nit ki daw ba yow da ngay dox di jéggi ay néew nga xam ni leer nga ni tey jii ñii dañoo daw ba dee si àll bi ñii dañoo xiif ba dee si àll bi te nag xiif ba dee si àll bi moo ëpp at ñoo xam ne tey jii da ngay dem amatoo xaalis naar yi ne la carrément ñun mënuñu laa dépend dóor la bal nga de loolu dong moo nekk si àll bi yoonu suuf bi moom moo gën a yées lépp li yées moom it moo yées nit ki daal ku nekk na nga gëm li nga gëm xam ni ku nekk fi nga ne war nga fee mën a te tekkee ndax yàlla moom moo moo yor ñëpp xam nga ki yor ñëpp nag boo ko tàllalee sa loxo te sabablu rek yàlla mën naa def mën nga cee génn.
xanaa man sama rakk yi sama jarbaat yi mooy nan góorgóorlu liggéey rek liggéey gi daal moo lay jàllale ak foo mën di ne boo liggéeyee te bañ a yàq te na nga am dara waaw waaw liggéey te bañ a yàq ak qu'importe liggéey bul xeeb daal waaw ndax boo xoolee suñu réew mi booy seet tey alpulaar yi ñoo fi ëppale tukulóor yeeg yeneen étranger yi ñoo fi ëppale te xeebuñu dara waaw dañuy dañuy jaay orange lu ne la ñuy def dañuy jaay boutique mbagg ak lu ne la ñuy def ah mais ñun lu tax mënuñoo def loolu nan góorgóorlu ci loolu dellusiwaat suñu xel te xam ni àdduna moom saxuñu fi wallaahi dañuy dem saxuñu fi am am lu mu bari bari bari bari da nga romb loo moom loo ñàkk ñàkkit gis boo tane nan feddaliwaat laxasaay dolliwaat suñu ngëm yàlla te xam ne liggéey dong mooy jàll ni yéen autorités yi nga xam ne yéenay ŋànk dëkk bi dimbali leen xale yi ci dëkk bi ah suñu doom lañ ak suñuy jarbaat amuñu dara lu dëkk bi fu ñu amee tamit fii lañ ko jëmee ñoo bëggoon ngeen dimbali leen bàyyi leen xel bu baax te xam ne ñoom amuñu lu dëkk bi. nañoo war a dimbali population bi jaami yàlla yi dong nga tax ñu teg leen fi nañ xool seen i nemmet li leen li leen jafe ñu jàpp ci ñoom ba muy mu tane ci ñoom donte du lu yombul sax mu tane ci ñoom. waaye falu naa rek man maa moom sama bopp dama yàlla wërsëgale man dong la déedéet dañ lay fal dafa amoon ñu tax la fal la ñu tax ñu fal ñooñee nag bàyyi leen xel.
nguur gi moo waroon a jël ay ay mesures nga xam ne dana sévère ci affaire wu ba pare nag te teg fa ay ay ay ay ay ay ay ñoo xam ne loolu rek la ñuy gëstu ñi nga xam ne dañuy dajale xale yi rek def nañ ci gaal bi ñoo def ñu ñu ñu jël mesure bi sévère loolu rek moom la dundee.
xanaa wax leen rek ne leen bàyyi géej gi moom vraiment gëmul quoi. ma sañoon dañuy toog fii xaar yàlla xaar yàlla mën naa am tamit bonjour ku nekk sa dessin moom lu yàlla bind boo boo nee da nga am rek da nga si jot mu neexee yàlla loolu laa doon ci laa lancé leen appel quoi tax wax tamit gouvernement bi tamit ñu jàppale tamit jeunes yi tamit bu baax ndax surtout se ngay gis ku jàng ba yor ay diplôme am xam nga du am liggéey dangay dem université deux ans cartouché xam nga yooyu tamit après mujjee chômage bi ngay mujjee doo def dara xam nga tamit loolu tamit doxul quoi. ma sañoon daal gars yi gouvernement bi gën see jàpp tamit.
ay waay waay nañ góorgóorlu fii ci Sénégal gii te xam ne ñun amuñu lu dul suñu réew mi la ngay am lu mu bari bari foofu fii dong nga koy jëme si. kon kay toogal fii loo am nga bokk kook say bokk ñu lay ñu lay sant di la ñaanal yàlla mën na lay dolli waaye dugg ci àll bi rek naan tey nga am xamu barson ba barsàq loolu daa mën a ñàkk. alal kay boo ko dee jëndee ak ruub waaw loolu mën naa ñàkk ah njariñ loo fekk waay wax dëgg yàlla nan feddaliwaat laxasaay te delluwaat ci àll bi duggaat ci marché yi seet ci luuma yi koo mën a jaay am dara bari na bu leen xeeb dara basaab bi buy bi kecax bi lépp daraa ngi xale yi moom nañ góorgóorlu yi di sàkku seen ñaanu waajur loolu daal moom mooy xewal gi moom boo amee ñaanu waajur moom jarul ngay dem fenn foo toog da nga teg incha allah ñun daal loolu ci amoon lu ñuy jàngat moom.
waaw li ma leen di yedde mooy ñi bañ a def loolu toog muñ ba ba ñu am ba yàlla suñu borom bi du leen wan yoon wu leer nañ muy maanaam nga dem dagg sa visa dem ndaw yooyu nañ muñ yàlla suñu borom bi dañ leen wan yoon wu leer nañ ba duñ def loolu ndax loolu dansé la metti na dansé la tante sens la moog weneen yoon yëpp a yem nag ndax même même yeneen yoon yi tante sens la même même kii demul toog sax même ku demul toog sax ay mbiram man ci yàlla moo ki am dagg visa dem ak ki jaar ci ndox mi benn la waaw tukki moom jaaroo ko ci yoon wóor àddina lépp lu ñu nit di def rek fa nga teg ko ci yoon ndax lu tegeewut ci yoon wóorul wala ay risque la boo gisee lii dal xale yi nii yi fi ñàkk a tegee ci yoon rek waaye koo xam ne kay dafa am ngay tukki eh, am sa xaalis am sa eh, nga toppatoo ba am visa di rentré réew mu nga jëm nga dem seen ambassade ñu dagale visa yi nga xam fa visa di rentré Eh, dagg bi wàcc foofu bu am risque boo demee benn nga toog fa wala ñu retourné delloo sa réew ko am benn risque waaw bon man li may digle eh, en tant que parent en tant que jullit en tant que mag li may digle li ma li may digle en tant que mag en tant que parent en tant que koo xam ne mos na mos na mos na li li mos na jafe-jafe yi ci xew te te ja- dal na sama ñaari doom fi ne loolu am na bon li may digle moo di xale ku ci tukkeeti jaar la yëf ci yoon rek ba ma ne am visa de rentré euh, am visa dem moo gën boo ko mën da am nga toog waaye tukki clandestin moo xam ne da ngay dox di làmbatu rek wóorul làmbatu wóorul mën ngaa daj mën ngaa ñàkk a daj waaw am na ñu ko def di ci am sens am na ñu ko def duñ ci am sens waaye daal jaarale ko ci yoon daal ba nga xam ne dara du lu si mën a fekk daal.
damay gën a conseiller xale yi ne leen affaire bi du fenn jom la rek ndax nit ki li nga commencé si benn moom ngay continue da ngay dem da ngay ñaan yàlla di am ñaar ñett ñeent waaye tey jii bu dee da nga ñëw door bëgg a commencé benn dem si vingt du sotti nit ki da ngay commencé benn ñaar fekk la ci waaye boo commencé wul dara dara du la ci fekk man daal li may gën a conseiller xale yi mooy wax dëgg yàlla ah waxuma dem moom voie légale demal visa yow yaa koy wutali sa bopp demal ambassade wutal sa bopp waaye képp ku la ne jox ma xaalis ma wut visa kooku dafay lekk sa xaalis rek waaye wax dëgg yàlla doo ci dem waaw tey rek fii mu nekk nii tey rek tey rek wax dëgg yàlla ñi nga xamee ne ñoo dem euh, tabax yi ñuy tabax keneen tabaxu ko fi oto yi ñuy dabal keneen dawalu ko fi tabaarakalaaw kër yi ñu am yeneen ak yeneen keneen amu ko fi loolooy tekki waaye bu fekkee ne da ngay wut buntu neel tekk ko comme li ma la wax rek fasalu ala si këri in kuntum laa taala mën a jaar ko ci yoon bu fekkee ne toog nga ba gis bunt boo xam ne leer na la ci leeral yàlla ne bunt bii kat da nga mën a génn réew mi tabaarakalaaw te boo demee da nga fa fekk say mbokk ak say xarit ak say am di jàmm ñu dimbali la tabaarakalaaw bu boobaa dem ayut waaye bu bu fekkee ne nag demu erreur rek la wala yeneen ak yeneen kooku dafay xaw a metti li ma bëgg a tënke sama wax daal moo di lu nit ki euh, bëgg a def na ca jiital xelam jiital te xalaatam te bu mu doyloo xelam boppam dong na laajte fasalu ala sikri in kuntum la taalamuuna parce que mag du yàlla waaye yàgg na ak yàlla te mag itam demul Europe demul ca yoon wa waaye bu duggee ci biir ron lalam ku ko ci laaj xalaatam ak yooyu bu la tëralee xalaat boobu xalaat boobu du deñ ma xelu kese la kon nañuy laaju ñoom ba ñuy ba ba la ñuy jóg waaye ni jékki-jékki nett si rek dégg ñu naan nangam ak nangam Égypte boo fa jaaree eh, Tunisie boo fa jaaree Maroc boo fa jaaree bare na ñoo xam ne la ñu lay wax boo demee ci réew moomee doo ko gis bu ko defee nag tàggatéem bi jàpp la tumbaranke jàpp la kon daal xale yi du ma ne bu ñu dem waaye bu ñuy dem nañuy dem ci anam gu leer naññi naññi naññi naññi naññi salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf voilà mbokk yi euh, seen magazine ak noonu ñuy ñaan yàlla buur bu baax bi mu tàbbi si ay nopp yu baax ngir lépp luñ fi waxtaanee nii nit ñi mun kaa euh, jëfee ngir njëriñu waaye askan bi waaye askan bi kat suñ koy wax ci jeunes yi lañ gën a yaakaar ndaxte ñoom ñooy doon ëllëg te nag su gone yëpp nax saayee ci géej gi wala ci désert bi suñu ëllëg dana xaw a lëndëm weesuwul ngir ñu waxtaan ak njaboot gi weesuwul ngir ñu gëm suñu bopp ñun jeunes yi weesuwul tamit ñu jàpp ne suñu réew ñun ñoo ko mën a tabaxal suñu bopp liggéeyal ko suñu bopp di leen jox rendez-vous incha allahu rabbi ci beneen numéro si seen émission leerlu di ci waxtaanee mbirum immigration irrégulière di leen fàttali ne émission bi ñoo ngi ko def si ndimbalu OIM di organisation internationale pour la migration di si gërëm bu baax tamit suñu reporter Papa Ndiaye mi nga xam ne moo ñu taataanaloon waxtaan yi de jërë ngeen jëf.
kunay mbiraago yi tey du leenoo ndax borom yet du xeex ak borom fetal te yenn dëgër bopp yi jaay sa bakkan laa waa réew mi tey lu leen waa Sénégal tey du leenoo ndax borom fetal du xeex ak borom xam-xam yenn dëgër bopp yi jaay sa askan laa ne borom xam-xam du xeex ak bur bi yàlla yenn dëgër bopp yi jaay sa diine laa